gannaaw samak sant rabbal aalamiina ala sayxi siyooxil wara te borom tuuba damay xamal ku xamul gindi ku réer ba gëlëm xamal ko xawsal wara te mooy borom tuuba lampu islam baa tuuba leer ga jolli na tey ku fiy jullit te niital ci sëñ tuuba man xumma waxati man xumma defati seeni gémmañ yi ngeen jël rek sam ko waa Touba El Hadji Ndiaye saaxibul 2S de lay bëgg a wax waxam jure jii mu ŋaaŋ bégloo na waa Kooba El Hadji Ndiaye de lay bëgg a wax waxam jure jii mu ŋaaŋ bégloo na waa Kooba dogal bu yàlla dogal lan moo ci yoonu sëriñ ba julit bu gëm dogal bu yàlla dogal lan moo ci yoonu sëriñ ba ngay sànni loo kurus jullit bu gëm buur baa gëmal tabanu ñu ñaani yàlla sunu borom bi tey fagaru gëm sun sëriñ tuubaa ñett ñi yàlla du delloo seenu ñaan abadan xaaral ma lim la ko asaa im bu gëm tuubaa ñaaral ba may bëgg wax imaam gu maandu gu wér ñetteel ba mooy ku tooñ xadis ba min mujtabaa kaaranteel ba maniwaay ndakaaru moo gën a yey jaxata yow mi ni woon def leen ko waa Tuuba quarantaine ba maniwaa ndakaaru moo gën a yey jaxata yow mi ni woon def leen ko waa Tuuba Omar Sall yow xamoo yàlla te it nanguwoo dogal ya maa la yërëm yàkku bañ ahla la Tuuba kuy teel a koy xool jantub njolloor tanaa gisuma wànnee na koy bëgg a rëy ngumbaam kuy teel a xool jantub njolloor tanaa gisuma wànnee na koy bëgg a rëy ngëmbeen nga xeeñ ngëmbeen nga feeñ tuuba yëral waba wal balaaya kullaha ñaanam gu rëy ñaanam gu rëy gaa waral meññeef ya naa fa jalañ mutayyabun shurbaha wa aklaha tuuba kenn déggagul gisagul ku sañ dëkk matul téeméeri at ya tof mu mel ni fii tuuba kenn gisagul ku sañ ci dëkk matul téeméeri at tof mu mel ni fii fan ngeen fi xam fu fi mel wax leen ma waay bu fi nar fu mel ni tuuba amul wallaay borom tuuba fan ngeen fi xam fu fi mel wax leen ma waay bu fi nar fu mel ni tuuba amul wallaay borom tuuba yal na yàlla dañal lu fay korona ba mu set ñuy dund jàmm ju wér ci eskay borom tuuba yal na yàlla dañal lu fay korona ba mu set ñuy dund jàmm ju wér eskay borom tuuba صلى الله على محمد نيغا سين سايدور ياك فيبر لول سين سايدور يالا فيك فيبر دي بروم كوبا